li nga xam ne mooy terre bi ak euh, stade bi inauguré sëriñ yoo xam génn wax ne foog ñu def ci ay tour wala ay ñaan sinon am na luy xew bientôt instant yi ci ci sëriñ yi ko wax. Mhm. ñu ne stade bi foog ñu def lan jaaraati mu leer dama bëgg muy leer ay tour ay ñaan ñu ne pour mu lan fu ñu dafa amee jinne mhm. ñu sëriñ yooyu xaalis dañuy ut barki sëriñ xoolal xoolal sëriñ yi wax loolu yëpp. bàyyiwuma ci kenn ñoom ñëpp laa wax xoola sëriñ yi wax loolu si stade bi di laaj ay sarax xaalis sa ñëwut xoola sëriñ yooyu demal gësu ku si mës a jàpp jinne ku si mës a jàpp jinne léegi nooy génne ay jinne ay sarax dakaa dàkk hey jinne sarax dàqu ko sëriñ yooyu naan ay stade bi nii dañuy fen yéen ñooñu naan stade bi ay sarax da ngeen di duul stade bi ay sarax new fa bàyyi jinne yaa ngi nii maay jinne yëpp maay seen bàyyi. da nga rocc yow da ngay rocc. 600 jinne laa su ma neexee fii laay toog yebal samay jinne lu fu jinne nekk ñu décanté la guddi guddi fii ngay fanaan si man yéen sëriñ yooyu naan stade bi ay sarax lay laaj loo leen def seen poche yi ngeen di wut dem leen ngeen liggéeyi ko ngeen ay stade bi laajul dara maa ko wax maa tey. te ne stade bi ay sarax lay laaj. wala daa am jinne na wala jinne fa nekk fii amul ku amul jinne sa kër gi nga dëkk sax am na jinne jinne yi ñoo ëpp doomu aadama yi dangay dëkk si kër sax jinne dëkk ak yow si kër gi jotewul ak yow dara jotewul ak yow dara amul ak yow benn affaire estat bañ naan daa am lii amul dara gaa yi ñoo ko créé bojo bojo yooyu doon xeex waale sekk loolu yëpp ak sëriñ yi si bëgg a potoxlu waale pour lekk si xaalis naan sarax Macky Sall estat bi laajul benn sarax Macky Sall stade bu bees bi laajul benn sarax man maa ko wax man Karamba borom jinne yi la métti six cent nangam mille taaliba jinne laa yor bu la wax day laaj ay sarax stade bi day duul na la woon ban jinne la mës a jàpp ak lu mës a def si internet bi dañuy fen rek seen poche yi lañ soxla nañ dem liggéey kodoo lii dañ koy liggéey lii mais doo toog fi stade bi lii la léegi léegi léegi na leen Macky Sall laaj sarax bi ñaata la ngeen dégg amee laaj exemple quoi na leen Macky Sall laaj état bi ñaar lay laaj sarax nga dégg ay millions lañ lay limal te bu dee sarax ak sarax barki sëriñ Fallou ñetti dërëm kese ñetti dërëm bu dee sarax ñetti dërëm kese mën na doon saraxu état bi ñetti dërëm déggoo ma de. saraxu stade bi yëpp bu ñu ko doon xool bu war a génne sarax sarax day taxawee mën na la taxawee sax 750 wala 100 francs wala fukk ak benn comme maanaam mais gars yi pour nga xam ne seen poche moo leen fa nekkal na leen Macky Sall laaj sarax bi ñaata la nga dégg ay millions lañ lay lima lim millions yooyu ngay dégg dañuy fen rek dañoo am ñu la jege ñu jege si état bi ñoom ñoo leen di xëccal parce que ay sëriñu communication lañ léegi pour sarax boobu noonu ñu génn ndax stade bi daa am jinne léegi sëriñ yooyu noonu ko wax ku si nekk na la jàppal jinne def ko vidéo Macky Sall pour ngeen noppaleku ngeen yeewu dañuy fen dara amu si stade bi fépp am jinne fépp foo xalaat am na jinne jinne yaa ngi fépp dëmm yaa ngi fépp foo dem am na jinne suñu kër yi ñu dëkk yëpp avant ñu koy dëkk lan la woon avant kër yi la fa nekkoon àll la woon ñaata kër fi ne avant stade bi lan la woon kon jinne yaa ngi fépp xamale ma la jinne yaa ngi fépp mais gars yi dañuy profité man révélation laay xeex sama révélation bi lan la damay jubal jinne yi ñu jub si bu leen di neex ak jinne la sëriñ yi gën a ragal jinne bu si jubul ma téegal la kon xam nga waxaale wu ma sëriñ waxaale wu ma dëmm ni may conditionné jinne yi ñuy jub di conditionné dëmm yi ñuy jubal rang bi far fos noonu laay conditionné sëriñ ñuy jubal dóoraate jeex na Sénégal dóor maata jeex na Sénégal karamba màgg na yéen sëriñu bajo bajo yi nekk Dakar di du lekk fu leen fekk dinaa maa ko wax maa tey dara du si deñ parce que nii lañ ma xame man sama liggéey lii la ku ma xam loo ma xamee lii nga ma xame su may liggéey damay liggéey su may wax lu ma saf laay wax parce que sama liggéey bi nee naa leen damay dimbali nit ñi ba xëy dee li may dimbali nit ñi bañu ma sama bakkeen bu wàcc bañu ma si noo fanaanoo bañu ma see tëdd kaso parce que tëdd naa kaso ba pare lan la lan la foo ma yóbbuwaat ñam naa ko ba pare moo tax sëriñu bajo bajo yi nekk Dakar di duul di triande rek lekk xaalis fu ma leen fekk naa dëgg ah. voilà laaj ma lu la neex ma wax ko tey cooptation Sénégal Égypte pour qualification boobu boo si duggee da nga may réer parce que jànguma. da nga ñaari ah. ñaari yoon waaw te coupe lan ngay waaj pour waajuma ci dara. dara tous daal waajuma ko ci. waajuma ci dara. maa ngi am sama xaalis bii di liggéey. Hmm. li ma man sama réew defal naa ko sama réew. Hmm. defal naa sama réew. xare naa teg sama bakken ba finaal bi sama golo si la wàcc golo gi ma doon yar fii si kër gi lu ne fere naa ko chaque match ñaata laay fere sarax ku ma ko jox jaayante naa ba coupe bi ñëw Sénégal sëriñ yëpp bi ñu ruuxee man maa taxaw assumé xaw ma assumé xaw ma assomé xaw ma assomé xaw ma assumé noo ko wax nu ma nu ko nit dégg nu ko nit dégg baax na sama yoon si nu ko nit déggee troisième match laa aalu saaga ñu ne damaa réew comme ni may saaga man leen la moo tax oowu leen seen bàyyi quatrième match laa liggéey ñaata bii laa lay dugal deux bii cinquième match man leen trois laay dugal yi assuré ñu ne damay fen dugg na wala duggul. sixième match man leen trois dugg na wala duggul. final bi gars yi gagné sax trois bi yee ko gagné. chiffre trois léegi loolu ma jaayante lépp defal ko Sénégal léegi imaginel tey ñuy jël ay xaalis di leen ko jox man bu ma kenn nee naa leen li ma def defuma ko séntuwuma ci xaalis. Mm-hmm. parce que am naa xaalis séntuwuma ku ma si yóbbu nga tukki. parce que su ma bëggee tukki fu ma teg 5 millions damay dem sama yoon yaa ngi may dégg su ma bëggee tukki fu ma dóor cinq millions table dem sama kon bëgguma ku ma yóbbu li ma ñor mooy sama réew. sama réew nag dimbali naa ko def naa ci li ma man financé naa sama xaalis def naa sama lépp ba coupe bi ñëw senegal mu jaral ma ma jël ñaari oto dugg Dakar raatale Dakar miine li may miine ba coupe bi ñëw Sénégal dégguma kenn ku ma ne karambaa félicitation. dégguma kenn ku ne ma Karamba félicitation. dégguma kenn ku ne ma kii léegi li ma defoon man li ma doon jaayante di ko def léegi sëriñ yi moom lañuy ñuy profité nii instant bii nii moo tax nag nii laay def toog bàyyi leen jaayante naa ba coupe d'Afrique bi ñëw Sénégal léegi li si des damay toog seetaan leen te bu ma si kenn woo ne ma karamba jàppal si match bi bu ma kenn woo ne ma karamba jàppal si match bi bu ma kenn woo parce que bi coupe bi jee bi final bi jeexee amul ku ma oo remercier ma man maa moom sama xam-xam état fayu ma kenn fayu ma dama ko doon def en tant que sénégalais sénégalais niñ ci axle woon te ma nekk si dëkk bi ni xam-xam laa yor kon sama xam-xam bi ban njëriñ la ma amal kon war naa mën a bégal sama réew bégal naa sama réew ba mu am lu mu mosul am lu ma leen waxoon fii barki Serigne Fall bu sama xol sedd ma indi Sénégal lu fi mosul am muy coupe te dama koy indi jël naa coupe yëpp coupe d'Afrique moo ma desee dama koy jël bi ma ko waxee ñun damay fen an coupe bi ñëw na wala ñëwul ñëw na léegi wàccoo naa ak sama liggéey laay continuer dama xëy jël coupe bi xëy jàpp ci néeg dem muy kon ne sama liggéey ak leneen leneen lu may liggéey basé wu ma si liggéey coupe d'Afrique man li may xëy sama kër di ko liggéey coupe d'Afrique bii mënuñu ma kaa fay wala déggoo li ma lay wax li may liggéey sama kër di faj ñin ñu ma koy fay coupe d'Afrique bi du ma ko fay coupe d'Afrique mënu ma ko fay ma koy fayee mënu ma ko fay te li ngay gis nii man damaa siis bëgguma di liggéeyandoo sëriñ hmm? man damaa siis bëgguma di liggéeyandoo sëriñ bar sëñ Fall damaa siis équipe soo bëggee ma gañeel la bul jël benn sëriñ. man damaa siis bëgguma liggéeyandoo benn sëriñ ngay basé wu di làmbatu si man di jafanduwaale si man bëgguma ko. man bëgguma loolu bëgguma loolu te équipe bu koy def parce que soo ko gisee bëgguma loolu des day dëgëral sama liggéey. parce que da nga gis nga yor benn équipe tey war a génne sarax bi pour bal bi dugg beneen sëriñu bojo bojo génne beneen sarax boo xam ne day gëlëmal affaire yi. te yow génne nga lu war dugal bal bi après loolu day tardeel sa liggéey. mais équipe bu Karamba sa yor soo la neexee bii par heure laa la koy wax bii sàngam nga ne ma man laa quinze minutes lay dugg benn matt bi daw su ma neexee man la bii bii quarante nangam minutes match bi dawee quarante minutes lay dugg te bu duggul si quarante minutes yi lu ci teg ay deux lay doon ay trois du romb quarante cinq man noonu lay liggéey si football. bañ naa ko ba équipe yi ma yor di leen liggéey lépp équipe bu ma si liggéey xam lu ma lay wax man victoire laay liggéey soo gañewul bul ma fay équipe bu ma mënti yor li ma lay wax mooy soo gañewul bul ma fay parce que sëriñ yooyu maa ñoom li tax man la maa ñoom ñoom ñu benn si football dinaa la envoyé coupe yi ma jël yëpp dinaa la woon coupe yi ma jël yëpp coupe bu ma jël yëpp championnat nawetaan basket jël naa coupe yëpp rawante lambu lépp laa jël coupe di Sénégal raate ko coupe d'Afrique moo ma dese woon te dugg na sama loxo bii li gënoon rafet sax teg ma si coupe bi sax ma photo parce que jël naa coupe yëpp photo si léegi lu tax mënu maa photo wu si coupe d'Afrique bi <laughs> kon fédération dégg li nga xam ne moom Kara Karamba wax yéen a koy dégg bu ñëw Sénégal ah li wax dégg ngeen man pour ñu xam man maay kan mhm. Karamba pour ñu xam man maay kan Sénégal Macky Sall Macky Sall pour nga xam man maay kan Macky man du ma waxantu gis nga match bii ma gars yi di laaj comme démarre ñoom bu ñuy demar dem di kii man duma ma liggéey du ma def dara damay bàyyi gars rek ñu liggéey damay bàyyi gars yi liggéey parce que am nañ ci ñoom yaakaar ñoom quoi mais man man ban genre kii laa man sëriñ yi commando laa si ñoom bu xaatee dama may génn man man la Messi. déggoo ma de. mën naa ne bàyyi ñu gérer match yépp mais Sénégal dama ne duma ma liggéey si match te bëgg naa ko def de mais xol bi mooy sot ba ba xonet ba soxla victoire ah. man du ma xaar sax ku ma ni ku ma ni génnal xamali ma du xaalis du dara quoi mm, mm, mm. mais exemple des fois am na lu ma metti nag parce que kenn kii wu wala benn affaire mais man sénégalais laa te bëgguma di kii wantu comme li ma wax gars yi rek comme ni ñu def trois match ah, trois match yi ñu li yi liggéey liggéeyu ma trois match yi ñu def am benn bii penalty liggéeyu ma noonu laay def mais bu ñu demee ba mu xaat ba tollu dër bi dama bëgg li may def ñu koy yëg booy liggéeyandoo gars yi du am sens te maa leen ko wax su ma demee bay dugalaat sama loxo su ma ñëwee dama leen wax ñaata bii laay dugal boo booy sama nuyoo ba pare areeraat na cëpp le Messi ku ma mën a yóbbu vaar yóbbu ma vaar maay seul mara du dul dem vaar déggoo ma de maay seul marabu boo xamante ni kenn du ma yóbbu vaar maa ëpp ay vidéo si équipe si coupe d'Afrique bi ban vidéo moo ci dem vaar léegi la moo tax duulkat yi yóbbuwaate vaar lu tax mënuñu woon sama vidéo yi may wone loolu kese mooma metti Sénégal boo duulee ñu wone la boo waxee dëgg nu ñuy def parce que bëgguñu ko avancé mooy li ñuy def Wally Seck si dëggam la nekk comme nii rek maanaam tey dañuy xam ne kii xam-xam la yor bu assuré xam-xam bu assuré la yor bu wér yaa ngi may dégg mais dóorkat yi ñoo bari moo tax carte gi jaxasoo carte gi nag ni muy jaxasoo si biir jaxasoo boobu noonu am na ñoo xam ne seen dara du jaxasoo donc quartier yeeg yëpp jaxasoo na mais lépp benn yoon la karambaan noonu laay doxe xoj amul leneen tus du xew. addiye sëriñ fàllu laa ko teg li ma li ma soxla ba soxal ma mooy lan la na doomu aadama yi di am jàmm Sénégal nañ góorgóorlu yéen sëriñ yooyu nga xamante ni yéen la gaa yi di waaj pour yóbbu leen buñ leen yóbboo yàlla na yàlla may ndam. yal na leen yàlla may ndam yàlla jàppale leen yéen ñëpp mais li ma leen wax daal gis ngeen nit du soxor quoi yéen ay sëriñ ngeen nit du soxor boo leen demee ba jommi oo leen ma ma dimbali leen loolu man maa leen ko wax maa leen ko may addiyee sëriñ Fallou